pourquoi nga ne PDS euh, li leen dal ñoo ko teg seen bopp. oui xam nga xam nga man personnellement leen dal neexuma je le dis très sincèrement parce que xam nga nit bu ñu ñu nekkee ci politique on aime bien même bu nekkee sa focalise pas toute notre attention on bien voir les gens ñuy avancer affaire di dox affaire bi am tuuti euh, benn dynamisme bi mais nit nga ñëw ñun passif bu ñu demoon élection 2019 ak lu mu xat xat xat am nañ candidat mais bu ñu noonu demoon ba naruñu am candidat nañ jël kenn teg ko foofu c'est ce qu'on a fait en 2024 président Macky Sall par xawma lan am na candidat boo xamante ne qui semble pas faire leur affaire bi ñu doon wax troisième mandat ko tudd dalay dàq il traîne en conseil des ministres avec des ministres qui attaquent son candidat te pourtant problème interne pour nga topp dina ñëw dina ñëw pendant ay années dina ñëw dina ñëw dina avec tout ce qu'on sait des ce qu'on dit du protocole de Conakry tout ça tey nga dellu siwaat lii am Sénégal ba amoo candidat candidat bi nga noonu day 2019 day ñëw te ñëwul ba léegi moom candidat wu ñëwul nga fexe ba amoo candidat pour un parti qui se dit que man am naa 40 ans def naa lii def naa def naa tey ñoom a n'ont pas su avoir un te politique lu factuel la ñuy juger c'est-à-dire que les gens ont beau faire des choses faire des compromis faire des teg des teg ay stratégie li nga xamante ne mooy factuel élection mi ñoom ñoo ko teg seen bopp et benn nit sérieusement warul mën a tax ñu remettre en cause lépp li fi xew Sénégal parce que boobu ba ni conseil mi mi ngi joxe ay décisions parfois décisions yi du la neex les gens les gens ba ñu ko ci génnee nii ñu on n'est pas d'accord mais pourtant bàyyi nañ ko foofu avocats yi def nañ ay notes yu notes circonstanciées yu am solo justifié lépp pour waaye ne Ousmane Sonko war ñu kii parce que par le passé am na jurisprudence yu bëri yu fi xew nga xamante taxoon na président dafa war a mën a nekk la preuve dañ ne ko reca murit mi nga xamante ne moo taxoon ñu ñu ñu ne dossier c'est un dossier bi ñu koy génne en définitive lu ñu wax ko euh, euh, jugement boo xamante ne c'est intervenu quelques quelques quelques jours ou semaines après c'est-à-dire que il faut que les gens à un moment donné ils soient conséquents te loi yi war ñu jël di ko modifier di ko tailler sur mesure pour benn donc muy PDS muy APR ñoom ñoo am problème. dégg nga non APR kay APR kay am nañ am nañ candidat non am nañ problème non am nañ problème parce que ñu mën a teg dialogue gis nga gis nga dégg nga barki démb le seen kii bi seen président groupe parlementaire awa la def de taille ñëpp di dégg c'est sur YouTube non ñun gis nañ ni biñ biñ demee dialogue da ngeen ñu waxoon que dañuy nekk candidat ñëw nañ fi ngeen dëkk lañu donc fa la ñu teg loo xamante ne mooy tax ñu dañuy dañuy ñëwaat après dans la course justement en période de vacances élection yi dañu koy on reprend tout à zéro mais président Macky Sall fi nekk c'est la conséquence il va jouer mais il va y laisser des mais cette question de de de de binationalité euh, on parle de, de de du cas Karim mais on parle euh, d'autres candidats yu nekk ci biir yoo xam ne euh, ils sont binationaux euh, d'abord. Euh, article 28 b qui dit que pour être président de la République il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise mm-hmm. nañ ko bàyyi en l'état nañ ko renforcer wala nañ ko rogner de notre constitution c'est-à-dire que il faut il faut il faut que les gens aussi ñu xool tuuti man j'ai j'ai j'ai euh, voir ci constitution de 63 amul benn exigence pour nekk déposer candidature nga ñëw la constitution de 2001 mu la de 92 je crois mooy la. Euh, non Wade moo ko ci dugal. de 2001. oui bu 92 si lañ ñëwaat xam nga bu après Sonko ñu ne euh, il faut être de nationalité sénégalaise mais neexul ñu exclusivement bi dama am benn dama j'ai un code annoté e les trois rubriques là dañu ko si tegal nii article modification yi quoi par rapport à euh, ak 2000. Euh... Non, a eu le code consensuel. Oui. Les constitutions, c'est 63. Euh, deux mille deux mille un et Maître Sall nee na ça a fait l'objet d'un débat houleux euh, entre ñoom ñi doon réfléchir ci affaire on est passé de de d'une disposition simple à une disposition qui annonçait la nationalité sénégalaise après une disposition bu naan nationalité exclusivement sénégalaise pour moi c'est une disposition très importante il faut la maintenir e et la renforcer loolu gëm xam nga lan xam nga ñu bëri ils ont justifié le fait que nit mënoo nekk de nation d' ailleurs benn condition bi ngay perdre sa nationalité bu nekkee France par exemple benn condition bi ngay perdre sa nationalité c'est-à-dire que France bu la gisee ngay liggéeyal beneen dëkk am fa ay charge publique c'est-à-dire que loyauté bi nga war a am vis-à-vis de la France dañuy jàpp ne il présumé ne yow amoo. dañu lay déchoir de sa nationalité. avant mais c' est une procédure c' est une procédure ñu seen code civil ñoom c'est-à-dire que dañuy enclenché benn procédure boo xamante ne in fine on sort un décret pour dire que tel tel appel parce que mais c' est contradictoire quoi il t'envoie une note après nga justifié wu et cetera et cetera ba ñu lay génne. mais le conseil a dit quelque chose de très très très important bi muy récalé Karim Wade et je crois que PDS foofu la ñu war a dem indi justification bu claire daf leen ne monsieur Karim Wade a adressé une demande de renonciation de sa euh, nationalité en date du 26 octobre 2023 c'est-à-dire que conseil bi waxu leen loo xamante ne kenn xamula la nekkul la néant c'est-à-dire que dañ leen jox date une date précise octobre deux mille vingt trois cest à que bi muy déposé ki yoom bi muy préparé dossier bi muy déposé il avait toujours sa nationalité parce que décret bi nga xamante ne moo ñëw di ko dindi. mu ngeen teewoon le 17 janvier. voilà et puis derrière quand tu une demande et que ñu jox la décharge derrière mën nga récupérer sa nationalité parce que même sa nationalité quand la perds mën nga récupérer parce que le code civil dit que décret. mooy acté. sa que je suis en train de la la déchéance de nationalité. su ma la yow autorité bi pour renoncer à ma nationalité am décharge su ma la ko photo envoyé ko Sénégal ne mi ngi nii déposé naa ça fait pas foi. pourquoi mm-hmm. parce que derrière tu peux aller retirer ça. dire que non non bindaat non je garde nationalité dañ la koy joxaat même après la perte avec le décret tu peux reprendre ta nationalité. donc ce qui fait foi c'est le décret disant que voilà tu prends ce décret là nga mën ko nga mën ko boo nekkee. nit ku bëgg a diriger askan am ay dispositions yu ñu teg nga nekk 2019 mënoo nekk candidat parce que pour lan mu jiwoo ñëw nga am ba 2024 5 ans après je que 5 ans c'est suffisant pour préparer un dossier de candidature